بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي نيجي في تيجي دكبو تدبي تي توبا تي تواي الشيخ محمود منتخا ابن الشيخ محمود البشير خليفة جنرال دي مريد اك تي تواي سرين الشيخ بسير مباك ابن سرين عبد الخادر اك سرين الازيم باك يفاي دي جوريني سرين بيتي ندكارو ngir kaddu leral yo xamanteni fas na ko yene jotali mu jëm ci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 sëriñ bi kon nee na jataay bii ñu toogaat tey fii ci Touba ci kër Cheikhul Khadim eh, dara wërulu ko lu may yitte juróoy ji nga xam ne moo nekk ci suñ kanam muy eh, jumaay ju màgg ji nga xam ne mooy jumaay sëriñ Touba jee ñu def ca Ndakaaru ba suñu borom def tey mu sotti ci ndigalam nag moom Cheikh Mouhamadou Mountakha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 bayiwu ci kenn fenn fu ci ne yabal na ndaw mu dem fa yëgal leen ko ndax waruñu ko yëge rek ci woote boo xam ne de maasi ñëpp waaye kon ñu ngi leen ko yëgalaat de xam ne ne bis bi moom ñoom bokk ndax jàkka ji kat eh, jàkka yi néegub yàlla la néegub yàlla nag képp koo xam ne ab jullit nga ci nga bokk yéen ñi nga xam ne yéen a jëfoor nag seen jëf moo tax mu agsi kon mi ngi ko yëgal bokk jullit yi di ko yëgal bokk taalibe yi mu war a dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar.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 خلم دمتينا ورنا دف جهاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم دوها ديجم لولو إذا سكرت ذلك المبيت وذلك الأمير وثبوت تعرض إلى الجهاد بالأرماه النفسي ولكن زب عن الماهي كونك جاك جي نان خمني لسرين بوخون سرين بي سارتي جمعة تواجا نكو دانا باكو سامو باكو دفو جرغوت سامو دك بجي توبا ak sama jumaa jama fay taxawal mooy sama bakk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 ndax mubaarakul ibtidaa yi mooy mënul intihaa yi rek moo fi ne ca tàmbali ba boo ko sëriñ Saliou xalaate ci liggéey bu njëkk ba moom mii la yebal mu dem tey xeeroo ginnaaw bi itam ci pàkk mujj bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoom ñaari ñoo ànd tegaat xeer wi bi Cheikh Sidi Mokhtar ñëwee itam ba ñu tàmbalaat liggéey bi demaatul moom lay wal mu teg xeer wi mu jël liggéey bi teg ko ci loxoom kon nag yàlla def na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 turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ni mooy xalif général de Mourides te ñu mu naalal sëriñ bi naal mi mu ko naalal ca Ndakaaru ànd kook mbokkam yeeg taalibe yëpp ba ñu toll ci war ko ubbi war koo jullee ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir waxee rek ñu jàpp ci date bi mu tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre dëppook tamit ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru muharram di wéru wolof ñu am ci nak programme yu yaato yaatu yo xamne ci ndigalu sëriñ bi mu santone ñu ñu def ci ay liggéey ak i gëstu liggéey ak gëstu yépp nak teunk nañ ko def ko nañ ko ci programme bo xamne bi bii dinañ ko tassaré manam ci ay këyit dinañ ko wax tamit ci radio yi ak ci télévision yi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 ban agal la ci suñ suñu yéene euh, nu weesuwul euh, euh, mbirum sëriñ bi rek biñ ko gisee biñ ko noppee gis ci boroom rek la nekk lim ko doon liggéeyam bépp itam mi ko tëkkoon ci te mu ngi ko tënkoon ci ilaahu kalimatillahi al-ulya yëkkati baatu suñu borom la ilaha illa allah muhammadu rasulullah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 ñoo ci yem képp ñoo ko ñoo kilifa diine di sàmm diine te dem la léppam lislaam la kon euh, noonu leen ci woo te ñu te dina xamal ne liggéey bi kat noo ko bokk noo noo ko bokk appelé wu leen ci dara kon nag il faut ñu